très eh bien asalaamaaleykum asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum partout dans le monde di leen bëggee di leen safoo di leen tiitaroo tey ñu ñëwaat ci Don Diego Show entertainment di dalal kan Lion Jah la lumière dinañ ci ñëwaat ci question boobu fekk si que ci studio boo xam ne vraiment dama kontaan ci arrivé bi ñi muy kan euh, studio Senside Senside boo leen ko déggee mooy Cheikh Khipili che Khipili de passage maa ngi nuyu la Ndiaga le promoteur international Ndiaga de passage ñu ngi lay bëggee fii fan la parcelle unité 26 fekk fii Alassane Fall di ko nuyoo di ko bëggee di ko safoo tey ma dalal Lion Dia Lion Dia na di la nuyu ci Diego Show bi. entertainment bu wér a wér a wér. très bien Ren la nga nuyoog askan bi. all right big up bon mhm. d' abord maa ngi nuyu waa Sénégal. di ko mhm. commencé sama town Saint-Louis big up big up à monde. Mhm. di ko commencé sama yaay. ak Eva Diop di ko nuyu bu bëri bëri naan ko maman. bon dundal wéral en mm. même avant may commencer di lancer benn message à mm. tous les Saint-Louisiens ça mm. di nañu bëgg ndar gëm ndar aussi tamit jàpp ndar di investir si ndar a gëm seen bopp tu vois ak fu nu mënti nekk rek nañuy daw di ñëw di investir à Saint-Louis quoi parce que mooy sa town bon au fait tamit di ko digal bépp <laughs> sénégalais tu vois wala bépp européen bu gëm sa taaw képp ku dëkk sa dëkk rek na nga ko defal quoi sincèrement en di nuyu en même temps sama papa Cheikh Khalifa Aydara a ah, Baya dara aussi di nuyu Pape Tine gérant Sopp Nabi depuis euh, je crois Kër Mbaye Fall Pape mhm. Sène Cheikh Issa Touré mhm. aussi tamit di nuyu mhm. père branché Sangomar Matar Seck. ok de passage. Sangomar big up à tout le monde. <laughs> doomu nday Jimtaw ah. <laughs> all right en même temps tamit balaa ñuy jàll di nuyu sama benn doom ndoy bi nga xam dafa ma jege trop. Mhm. yow Youssouf Fall. Youssouf Fall you mine quoi. depuis Rosso Mauritanie ok. moom ci grand Saint-Louisien la. très bien di big up à tous les Saint-Louisiens nag. ak ça kontaan naa ci loolu. Lion Jah. Mhm. lan mooy Lion Jah. waaw Landian bon su ma déggee def naa wax nga ko sànq. parce que hmm. da nga ni le lion la lumière. kon Landian Landian est un messager. ok all right est un messager depuis quand nga nekk messager boobu. bon au fait euh, maa ngi commencé musique euh, dans les années deux mille deux mille sept. je crois ah, depuis quand rek nga xam ne musique bi laa lay wax. ah bien sûr pourquoi <laughs> parce que. <laughs> alors depuis quand nga dugg ci euh, musique bi. bon au fait c' était en deux mille sept ba ma defee rencontre ak Tiken Jah Fakoly. très bien maa ngi ko fekk Mali c'était en 2006. macha allah bon grand bi nga xam ne Aziz Wonde ñëpp a ko xam au Mali quoi. Mhm. peut être xam naa fii gars yi ko naan. Mhm. mais bon au Mali gars yi xam nañ ko trop trop trop tu vois. bon mu nekkoon nag xam dafa ma jege woon ak ñeneen ak ñeneen sax. Mhm. bon dama fàtte seen tur mais ay ay ay ay réel oh donc loolu la inspiré ci bon en man bu njëkk bon mélomane la ça dama doon déglu Lucky Dube bi. Mhm. surtout Alpha Blondy ba ma gën a inspiré nag. ci Alpha ma man xam naa ay Adja Man. Bob Marley effectivement waaw bon ñëpp laa doon déglu en eh, fait. mais ça Gregory Isaac. bien sûr les Peter Tosh effectivement bon mais kii laa gënoon di déglu nag Alpha Blondy bon muy déglu moom bon sama gars na nag yow pourquoi il. est-ce que doo def musique. Mhm. sama gars yi dañ ko doon wax quoi. mais bon au fait gëwuma parce que temps yoo xam nga rek dama gëmoon affaire gangster yi. Mhm. di létt institut mhm. yu yu demee noonu quoi. tax finalement yaa ngi rasta. waaw gis nga gis nga de. très bien Layen Dia. <laughs> très bien léegi nag ba ma demee au Mali tamit boo gisee ay cadres yi nga xam sincèrement boo xam na ni boo nit ma il fallait nga def musique quoi. très bien bon ma tamit dëgëruma bopp. ma siy gëstu nànk-nànk. très bien donc euh, nga def sa premier single. jàmm rek a wóor. jàmm rek définition jàmm rek a mën nañu tuuti may benn acapella après ñu dugg ci. Oh, jàmm rek a wóor nanu dox nanu waa nanu ñaan ñaan jàmm la vie sur terre éphémère. Pourquoi tant de guerres sur la terre Évitons ces misères, ces déchirures. Non à la violence, oui la tolérance. Calculons la souffrance, nous sommes des références. Respectons notre mère qui est la terre jaamu jaamu jaamu jaamu moom rek a wóor jaamu jaamu jaamu jaamu moom rek a waar waar. all right now. dama te gis nga wax ci français wax ci olof. Uh-huh. pourquoi mu na woon euh, jàmm rek a wóor bi mën na ko woon rek branché ci olof bi rek. mu dem parce que dafa nekk actualité bi nga xam te ni ça touche bon partout. dans le monde quoi ñëpp la touché parce que booy xool actuellement surtout en Afrique misère guerre misère guerre. booy xool tamit en Europe bon am na ay je ne sais pas am na am na am na daal yu fay xew ay affaire terroriste yi. je ne sais mhm. pas ak xam nga bon en même temps tamit pour jéem a indi nit ku ñuul ak nit ku weex tamit pour ñu nekk benn. parce que boo mhm. seetaanee clip bi. Mhm. di nga ci gis image yu bon nit ku weex ak nit ku ñuul ñu jàppoo. loolu tamit lu am solo la quoi c'est-à-dire àdduna bi ñun donc mm-hmm. coïncide na ak terroristes actuellement dans le monde ah, entier. ah bien sûr parce que ci euh, ci fin wu image bi ñu ngi ko ci bind quoi. am na je pense que clip boobu clip boobu après la ñu jàllale. ah bien sûr avant ñuy pare émission bi. bien sûr très bien. Mm-hmm. Euh, Layne Dia yaa ngi def ay tournées internationales ak nationales. ah pas encore nag parce que xam rek maa ngi doog ay débuté. récemment. relation yi nga am ak artistes yi fii Sénégal ñan ak ñan ak ñan ak ñan ak ñan la. bon au fait bon actuellement bon mën naa ni amaguma ak euh, relation ak artistes yi quoi. tu hmm. dama ne naa job tuuti. Hmm. Euh, ba am lu mu mun a présenter gars yi pour gars yi mën ko gis quoi effectivement. jàmm ku ko produire. ku la ci euh, jàppale jàmm rek war bi son bon maa ngi bi quoi waaw son bi bon ku ko produire non dama ko dama ko prise de voix rek maquette la quoi mm. clip bi ku ko tourné euh, bon clip bi kii moo ko tourné sama benn gaane nag bi nga xam te ne dafa ma gis woon benn festival fële euh, Ngaay quoi côté Ngaay. kon yaa ngi participer ci festival yi. waaw bien sûr benn festival bu ndaw loon ma ñëwoon jouer bon mun ma sincèrement da war a am clip. bon mm. ma tim dëgër moom man que bon allez-y comme que loolu nga gis bon di tourné vite fait clip bi quoi. loo séntu ci musique bi actuellement. bon lu bëri lu bëri lu bëri yaatu na bëgg nañ ci àgg fu ne dem ci fu ne. Mm. ok gisi lu lu ne aussi tamit am ci lu ne quoi sincèrement. installé na sa orchestre. Euh, non pas encore non pour l' instant parce que ñuy doog a jóg mais dara mm. gars yi bu ñuy dégg na ñëpp ñëw participer rek. yow kan ak kan ak kan la. bon actuellement actuellement moom man kese la ak staff bi mooy comme comme yéen rek. tu vois ñi may déglu ñi may bëggee quoi mbooloo mooy doole de. waaw mbooloo mooy doole. tey ñu fekk si la si studio boo xam ne vraiment. studio Sen Saet la. Sen Saet la ban relation nga am ak Ndiaga le promoteur. waa samedi Sen Saet moom samedi daf may neex lool ma ñëw fi def fi émission parce que mm-hmm. d' abord ki nga xamante ni je crois mooy propriétaire bi. Mm-hmm. sama mun naa sama ami d' enfance noonu laa ko mën a waxee quoi. Mm-hmm. dañoo yàgg quoi ça fait longtemps muy mais mhm. nekk fii quoi mais njaga tamit mhm. sincèrement ak buzz ñu ñëpp benn lañu quoi bon pourquoi mhm. pas ma bert leen ñu leen tey moom xam naa émission da nga leen bett quoi waaw dama leen bett nag parce que ñoom programmé wuñu ko très bien effectivement je pense que gis ngeen ko Lion Dia mi ngi noonu le lion la lumière mhm. mu nekk euh, jeune talent boo xam ni euh, je pense que kenn xamagu ko ko mi ngi soog a dox man tey Diego Show bi damay dem di dugg ci banlieue bi mhm. di découvrir ñi nga xam ni franchement am nañu talent am niveau bi bëgg liggéey mhm. euh, ma wane leen comme que man dañ ma wane man tamit dama leen di wane pour le moment ñu dem xooli sa benn clip jàmm rek woo après ñëwaat de guerre sur la terre, évitant ces misères, ces déchirures. Non à la violence, oui la tolérance, calculons la souffrance, nous sommes des références, respectons notre mère, respectons notre mère qui est la terre. xalxalima si daati wuluna ñu ngi sàkku ñaan ñu ngi sàkku ñaan ngir jàmm Touba MC all soldu listen listen listen to you jàmm rek a war jàmm rek a war jàmm war ay jàmm war jàmm rek a waar jàmm rek a waar am ay jàmm rek a waar jàmm rek a waar jàmm rek a waar am ay jàmm rek a waar jàmm rek a waar jàmm rek a waar am ay yow yow Sénégal Sénégal réew mi teraanga réew mi jàmm réew mi ñoo ko moom buñ ko toj nañ ko sàmm élection yaa ngi ñëw nañ ko fal fol ci jàmm Sénégal jóg ca kaw bokk si lu ñu gën a tànn bu naree neex booy su baxee dafay xeeñ waaye xol bu naree neexit su baaxee di jur een Sénégal sénégalais jëf ca kaw ma lay seen séeréer joolaa mandeng bi amul xàgg ak seen précis la ñu jiital kon buñ ko sikkal ngelawaay buñ ko tiital nañ ko bàyyi xelam ni gaynde yàggee sellam ibaadu beeg sellam dëgg beeg ngalam ni géwél bi ak ngalam let's fight for peace so let's never accept violence so Come on and say, good or sweet Waldo Only that can be helpful is Waldo Darkness is looming ahead But we dream to go ahead Jamureka wa, Jamureka wa, Jamureka wa ai Jamureka wa, Jamureka wa, Jamureka wa ai Jamureka wa, Jamure kawan, jamure kawan, ay. Jamure kawan, jamure kawan, jamure kawan, ay. Apollo everybody, for the sake of everybody. Rich knowledge keepers, to be world peace leaders. Let go jolly now. Cheikh Issa Touré la xalif de la jeunesse am nga ko mën nga ko ñaanal ñu borom balaanu samedi borom téeméeri noori bilaay walaay boo ñaanee si baagi daba jàmm sa let's talk let's walk let's pray for peace so come on come on Jamureka wa Jamureka wa Jamureka wa ai Jamureka wa Jamureka wa Jamureka wa ai Jamureka wa Jamureka wa Jamureka wa ai Jamureka wa Jamureka wa Jamureka wa ai Cher président, cher peuple, la violence n'est pas une solution. Laissons-nous l'attention. Prions, parlons, marchons pour la paix forever. God bless the world. bonne job about a bon job yow mais laay clip bi wuu c'est extraordinaire clip bi nice ah, gis nga dugal ci président mais pourquoi nga dugal ci président ci biir clip bi juste rek pour lancer benn message au mhm. Mhm. africain et sénégalais quoi tu vois. Mhm. parce que booy xool Afrique actuellement nii ça veut dire mhm. ngeen baal ma mais dafa tardé trop trop trop. mais dëgg la wax ko jéego ah. soo nga nekk. bu tardé waxal bu avancé waxal. ñu rectifié xool nekk ci liggéey bi mais mu ñëw <laughs> wala boobu <laughs> tu vois xam nga booy xool Afrique benn devise la nga xamee. ça fait longtemps misère guerre quoi. dëgg la actuellement comme que bon ça veut dire ñu ngi toll fi nga xam te liggéey moo war parce que am na benn son bi nga xam sax xam naa dina génn parce que boobu am moo ko war a lancé. passé amul 2S quoi tu vois. ok am na passage bu koy lu bëre bëre bëri di ko ñaan mu jàpp ci clip bi mu gaaw a sotti quoi tu vois. Mhm. que actuellement jeunesse bi surtout population bi ak euh, dirigeants yi dañu war a jàpp liggéey. Mhm. di moytu ñu ñuy influencer ñi mhm. créer ay violence baaxul influence bi comprendre nga président ça veut dire yàlla moo koy fal moom falu boppam. voilà dagg ci nguuram jox ko tu vois comprendre kon nañ ko jàppale. ànd moom. liggéey réew mi quoi mu mën a avancer. très bien aussi tamit di ah. lancer benn mhm. mu concentré jàppale ñun jeunesse yi tamit. ñu am mhm. lu ñu mhm. a créer emploi defar defar daal a ah, war a xool ak maire de commune def seen warugar di toog seen bureau en plus. di toog seen bureau di recevoir population bi. parce que jeunesse bi dañuy soxla loolu. waaw ñëw nga mbébét le problème boo ko mënee régler nga régler ko. mënul régler et puis ku am sa métier sax waroo chômer. waaw bien sûr ba pare xale yi tamit dem jàngi métier en jeunesse nañ dem jàngi métier. doo toog rek yore métier naan dama bëgg a président ma liggéey fan la lay def. non jàmm rek a war qualification nga rek a dafa wax lépp. Mhm. jàmm rek a war il fallait que ku nekk. très bien mhm. liggéey ku nekk ci la nga mënee nga yëngatu ci. très bien parce que nit ku ne boo amee occupation rek surtout la jeunesse. Mhm. ça veut dire jàmm da daal di am quoi. est-ce que rasta yi ñu lekk yàpp léegi rasta man yi dañu changé ah gis rasta buy lekk yàpp à l'époque rasta daawu lekk. mais attends y a toujours y a un messager et un rasta quoi comprendre nga. Mhm. ki nga xam da koy dund quoi comprendre parce que rasta boo xool religion la comme ni ñu koy waxee mais. Euh, ça n'a rien à voir avec un règlement tu vois. mën nga nekk reggae ak rasta lu leen comparé. bon mën nga gis rastaman yi ak règlement yi dañuy tux hashish di tux bon di def di inspiré yow doo tux cigarette. Hmm. yow yaa ngi lekk yàpp. ba pare nga ni rasta nga doo ay joint. non mais attends. waaw Lion Jah da nga war di daaju. waaw mais attends ça veut dire man bon en fait en fait. non Lion da nga war di tëb say. waaw mais di def ay maja. attends boobu maa nga ni l'andia le lion la lumière d' abord wax nga un messager quoi mhm. la la lumière bu ñu ko dee bon lu set la mhm. li nga xam te nit ñi dañ ci war a jàng nit ñi mhm. ci war a gis jariñu si quoi mais imaginez tey l'andia téye bonam di tox ma reggae en commençant Bob Marley The Wailers groupe bi ñëpp ay daaju Siples dañuy tox ay jaamaan dañuy tox Alpha Blondy dañuy tox tu vois y a beaucoup de reggae rasamaan yoo xam ni dañuy tox yow nga bëgg a nekk rastaman doo tox. waaw en fait boo toxul man te du ma ko digal sama sama benn. Eh, rastaman day daaju ah, day non non non mais lu tax ngay lekk yàpp. ah mais bien sûr je suis un lion. Ah, wax nga non non lion nag non nga boo xam ni message la d' accord mais nga quand même. non attends je suis man. te un reggae man bi nga le reggae man. ay crédit rek laa xamee rasta un oh, lekk yàpp. non non attends euh, parce que. rassemblement bi nga xam ni Jami gi la nekk ak rassemblement bi nga xam te ni Sénégal rek bon daan am benn différence. fi ban rassemblement Sénégal nga fi xam. bon en fait bëri na euh, waaw ak Gambie yi. bëri na nu bon ñoom ñëppay tux. waa mais non leeruma. da nga ragal ah mais ñoom émission Diego Show kuntaa gi dama lay yore. non non ñoom ñëppay toog. non non mais je m'excuse je instant eh. parce que xam-xam que askan bi dañu war a dégg. te mhm. aussi da nga ko war a yàbbi bon nañu effacer juin yi quoi parce mhm. du lu nice quoi parce que actuellement booy xool Afrique nu mu tardé tu mhm. amaguñu benn je ne sais pas benn avancement benn développement. c'est-à-dire bu jeunesse bi dee toog ngeen naka lay demee. non yow joxuma jeunesse bi. yow rasta nga yow reggae ngay def rasta nga. jeunesse bi. ñoom ñii tux ñoo xam ñi dul tux ñoo xam mais yow à travers sa musique laa lay wax da nga war du tux. waaw léegi man tuxuma. waaw mais comme euh, musique bi ni muy avancé sa côté. ah bien sûr parce que maa ñëppay tux rek maa ñëppay tux. yow nga doon tux. ah mais pourquoi non laay jaana da nga war a tux. non non non non da nga war a tux de. Eh. non non je ne suis pas d' accord avec vous ah. ah <laughs> wante ok bref ñu passé ko. Dia dafa je pense que émission bi heure bi jot na. Mhm. di ci bëggee international consulting Lamine Diabaté ñu ngi koy nuyu vraiment de passage. bien sûr di nuyu personnel de 2STV mhm. yëpp di bëggee am taw di jim taw di ko bëggee. Mhm. di bëggee tamit beneen jim bi nga xamante ni moo ñu indi vraiment yoon bi métti na trop mais mi ngi mi ngi accepté lépp mhm. di nuyu tamit waaye studio Sen Side Cheikh Pili euh, vraiment Ndiaga ñu ngi koy bëggee mi ngi te c'est un artiste Ndiaga c'est complet vraiment mhm. Prof Daddy ah <laughs> très bien <laughs> voilà et puis mi ngi def ay son yu nice dinañ ci ñëwaat di nuyu Alassane Fall tamit artiste international compositeur ñoom ñëpp ñu ngi leen di big up di nuyu sama yaay sama papa sama soxna samay doom ak toute la famille sénégalaise Gouthia Chao, po, chao, la piño. Chao, ale. Okay. <laughs>